baax moom champion te di ko jaajëfal ginnaaw ba gouverneur bi génne génne arrêté ñuy war reporté combat yëpp nga nekk champion préparé combat ba heure lan nga yëg. waa affaire yi moom gannaaw bu yàlla julli si yéen di sant suñu ñaari waajur dañuy sant ñëpp waaw di nuyu kilifa diine yi xam nga di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi xam nga di nuyu ñu caabi féete ginnaaw yàlla génne leen fi ñu nekk xam nga nekk si hôpital yàlla fëgg seen bopp di ñaan jàmm daal waa affaire yi moom comme ni ngeen ko gisee rek affaire yi moom métti na méttiwaay boo xamante ni moom xam nga kenn neexul kenn kenn dafa lu ñëpp la metti xam nga parce que tamit ku nga xam ne ni nga rawatina tamit xam nga nga wàcc sa combat ba mu des ay 15 jours ay 17 jours yooyu xam nga ñu ne la annulé ko dafa xaw a metti say bëri yoo xam ne xam nga gis nga li yàlla xam doy na waaw day day metti suñu côté daal waaw kenn rafetlu ko metti na trop daal waaw. léegi bi nga yëgee loolu naka nga def ak sa supporter mooy li nga gis nii rek naqar bu ñu si am rek ñoom ñoo ci ëpp parce que boo xoolee lii rek da ko confirmé xam nga gars yi pare woon nañ tax drapeau yi xam nga daajaat asiko yi xam nga waaw daajaat kaar defar ay asiko yu bees takk ay drapeau jënd ay takk ay banderole def lu ne xam nga di daleel ay xaalis ak lu ne ñu jékki-jékki gaañ xam nga ñu ne la affaire annulé nañ ko dafa xaw a métti xam nga nga nekk si préparation gaañ xam nga parce que combat boo xam ne at yaa ngi koy pare. xam nga voyagé ci voyagé waa ci xam nga da ci ay coono yu métti perte ci xaalis bu jeex xam nga ñoo ba moment bi gàncax mu demee nii day dafa métti waa métti na torop ci noonu nag combat bi annulé ko instant làmb amagul ndax xam nga fan la wanante mbëjëg gëtam da ngay delluwaat ci entraînement yi wala da ngay dellu ci métier ba nga nekkoon en attendant. waaw dañ ciy nekk rek ñun xam nga làmb mooy suñu métier ñun làmb lañ am làmb mooy suñu métier mooy suñu lépp dañ ciy nekk chaque jour ooy bu ñu amee bu ñamul amul combat dañuy nekk ci entraînement yi kon nag rawatina bu ñu amee bu ñu nekkee ci contrat xam nga parce que tamit ñu nekk ci contra mu li mu yàqu tam teewul di nga bëree parce que tamit tôt ou di nga bëree moo xam mu yéex moo xam mu gaaw kon amoo dara looy looy xaar wala looy noppalu wala dara parce que ay xale lañ rek sa làmb mooy suñu liggéey kon dañ ciy nekkaat rek waaw. à part làmb Double Moteur lan lay def. waaw à part nga gis fii rek à moom am naa sama métier nag. man am naa sama métier sama profession soudeur métallique la mooy sama métier quoi et à part làmb des damay dem di ko liggéey mais xam nga làmb moom dafay toll niveau boo xamante ni munu mënut ànd ak dara waaw mënut a ak dara parce que tamit temps bi nga am yëpp récupération lay laaj parce que boo xoolee matin da ngay entraîné xam nga boo jugee matin entraînement ay 11h nga dem salle kon doo am temps boo fa jugee da ngay daj coono yoo xamante ni récupération ngay soxla nelaw kon temps bi nga am pour liggéey du bari. moo tax xanaa entraînement mooy nekk seen métier kese ñëw coone ci gars yi affaire yooyu noonu waaw moo tax day metti daal moo tax bu ñu waajee combat bu mu toll fii dem mu yàqu day metti day metti trop parce que yenn moyen yi nekku fi xam nga gars yi ñooy taxale seen moonin xam nga di la jox boo ñooy dajale seen xaalis chaque jour di la jox ñooy dajale seen xaalis ba mu mat junni ñu jox la ko pour nga koy dépenser bés bu yàlla sàkk boo xoolee depuis mu jógee sama voyage ba léegi booy ñooy taxal seen moni di la jox gars yi ñoo lay jox seen xaalis seen ngay dépense wu xam nga di ci lekk ak yooyu noonu dafa metti quoi te booy la koy jox tamit xam nga say morom lañ dañ koy taxale rek affaire yooyu noonu amaanaam bëgg mooy waral tamit xam nga ñuy ñuy xañ seen boobu sax di la jox kon dafa metti nguur gi daal war nañu gëstu jàppale ñu daal xam ne xam nga gars yi sonn nañ xam ne gars yi nañ trop waaw war nañu bàyyi xel yenn gaa yi bu baax a baax a baax état bi war nañu bàyyi xel yenn gars yi baax a baax xam ne gars yi sonn nañ bu ñu xool si ñoom seen biir rek parce bu dee ñoom seen biir rek xam nga amaana mooy lool mais dañuy xool si gars yi nga xamante ne xam nga des fois 1000 francs sax day métti billaay walaay talaay pour ñoom 1000 francs yaa ñu dépensé sax day métti nañuy xool si ñoom bu ñu dee xool ñoom nag amaana tey jii nii mën na bañ a demee nii quoi li am nag amaana luñ ko métti na parce que tamit feebar la lañu wax. bu fi yàlla wàccee doone kenn tamit moo def toor wala dara feebar la boo xamante ni kenn mënu si dara yàgg na yàggul parce que boo xoolee depuis daaw ba léegi feebar baa ngi fi gars yi sonn nañ dem nañ ba benn moment tamit xam nga jël nañ décision sax dund ak feebar bi mais gis nañ tamit par la suite troisième vague bi ñu wax ni affaire dafa gën a métti décision yi ci jël moo tax gars yi jël si yenn décision yi mais nga la waaye tam bu ñu si jël yenn décision yi tamit nañ xool ñi nga xamante ne tey jii nii tamit seen loxo jotul seen ginnaaw même bu fekkoon ne tey yenn yenn moyens yi la sax ñu jël ko financé leen ko wala yenn aides yi ñu jël ko xëpp ko si ñooñu amaana mën na bañ a kom comme ni mu war a méttee man foofu laay waxee parce que boo xoolee tamit lii dafa métti quoi mbër wàcc sa xam nga ba dara desul gain lu dul bëre ñu yàqal ko nii nii tamit après da ngay dem ba xam nga doo xam yow ban Sénégal nga nekk. jàppale ci autorité nga dëkkal. xam nga jàppale yi ñoom ci autorité yi ñu xam nga jàppale ku ne xam na ni mbër jàppaleem yëpp ay semaine combat la si la autorité di jàppale xam nga mais bu ñu demee ba dégg ni tamit combat bi demee nii tamit xam nga mënoo fëgg kenn nan ko nii wala nii parce que làmb ci amul kan xamul kañ ngay bëree noonu la demee mais fii autorité yi bu dul suñu papa Diop si xam nga gisuñu tamit gisuñu gisuñu suñu bopp si benn autorité fii c'est dëgg la yàlla bëgg suñu papa Diop si moo ñuy jàppale bu weesoo suñu papa Diop si tey jii nii suñu maire bi chaque jour dañ koy kaas war nañuy jàppale. dañuy soxla Lions parce que ñun ay doomu Dakar Plateau lañ Dakar Plateau la ñuy représenté particulièrement Rebeuss fi lañ juddoo fi lañ yoroo fi lañ màggee nekk ay doomu gox bi di repre di représenté Dakar Plateau bi kon maire bi war nañ mën a war nañ mën a gis suñu bopp si moom parce que ñun bu ñu jugee ñëppay jóg population bi ñëppay jóg mag ndaw góor ak jigéen ñëppay jóg ci sonn kon tey jii ñoom war nañu mën a épauler war nañu mën a dooleel adjoint am nag Seydou Camara moom dama koy sant bu baax di ko gërëm parce que lépp loo xamante ni nekk naa si daf ma siy jàppale mais Alioune Ndoye gisuñu suñu bopp ci moom ñun ñun ñun ñun ñun ñun man boog man acteur gis ma sama bopp ci moom ndax amaguma combat tey jii nii ba gis benn ndimbal bu jóge si moom ñu ne kii lii kat maire bi moo ko jàpp double moteur yaa ngi dégg man gisuguma ko te tamit ñu ngi koy sàkku ci moom parce que moom moo ñu fi teewal mooy suñu maire ñu ngi koy sàkku ci moom rawatina bës bi nga xamante ne tey jii nii moom lañ dëgmal mu nekk combat boo xam ne baa capital la baa àdduna la ñëpp koy xaar kon soxla nañ si ndimbalam bu baax a baax a baax baax yaa ngi dégg ak yeneen autorités yi fi nekk ci mel ni suñu pape Abdou Khadir Jeylaani yàgguñu xamante mais wax dëgg yàlla mention spéciale dañ koy sant bu baax di ko gërëm gis nañ taxawaayam si ñun xam nga te yàgguñu bi ñu xamante xam nga mais ñu ngi koy ñaanal yàlla aussi tamit di ko xamal ni ko tamit moom na dalal xelam te xam ñun ku ñu jàppale rek ñu jàppale la képp ku nekk suñu ginnaaw dañ doole li ñu jàppale dañ lay jàppale waaw parce que ñun tamit am amuñu lu suñu bopp yee noonu la demee parce que tamit fii koo fi gis tamit gars yi la jàppale rek ku jàpp kuñ fi jàppale nga dem yee kon tamit ñoom nañu gëstu daal te xam ne ñun dañoo am lu ñuy représenté tey auteur de voix lañ suñu kàddu bëri bëri bëri bëri tey jii nii bu gars yi naroon daje buñ leen bàyyiloo dañuy bàyyi kon loolu noonu tey jii nii tamit pour man loolu chance la boo xam ne yàlla moo koy def kon su ko defee si ñun ñoom ñi nga xamante ne tey ñoom la ñoom ñooy suñu ay kilifa war nañu mën a dooleel si loolu noonu ñu mën di sensibiliser booy di mën di sensibiliser seen di mën ñu jàppale mais bu fekkee ne dem ñu taxaw di ñu seetaan jàppale ñu tamit loolu du lu ñuy doon du lu ñuy mën day metti yee noonu la demee nag. fu ne nii en tant que jeune lutteur citoyen en même temps ban conseil ak ban message ngay lancé. waaw conseil bi ñuy lancé ak conseil message bi ñuy lancé état bi la koy mooy mu jàppale làmb jàpp xam ne jeunesse bi sonn nañ waa làmb sonn nañ mbëri sonn nañ nañ leen jàppale bu fekkee ne day day financé promoteur sax ñu ñu organiser huis clos sax ñun mbëri ñu dem bëri ñun bëgg nañ parce que tey jii huis clos tamit dëgg la ñun bañuñu ko parce que tey jii bëri rek la ñu am ñun lu ñu am tey jii ni bëree ba contrat bi wàccoog promoteur bi la ñu parce que at yaa ngi dégg mais tamit loolu dafa am lu mu laaj loolu état bi moo ci war a jàpp jàppale promoteurs yi am lu mu leen jox parce que mënoo jël say millions jël say millions yu bëri financé ko ci ay mbër yaa ngi dégg amoo sponsor bu la jàppale yaakaaroo ko lu ko si ay billets te posé huis clos loolu bu ci état métti mooy mu mel ni tey ji nga jël sa ay millions rek kos almet taal day métti xam nga kon tey jii nii tamit ak ñun ñi tamit nga xam ne ay mbër feebar bi tax tamit ñuy rapport suñu mais promoteur jox xaalis promoteurs yi jàppale yenn mbër yi tamit dolli leen xaalis ñu mën a préparer waat seen combat man message boobu laay lancé parce que tamit li am am na ba pare yaa ngi dégg le fait que nag tey tey jii nii ñu toog di seetaan tey nii ba gars yi fipp wala gars yi mer tamit wàcc si terrain bi day gën a métti boobaa day gën a te xam nga ñun jàmm la ñuy ñaan ci réew mi ñaan yàlla jàmm ci réew mi kenn ñaanu fi yàlla ay xam nga mais tamit lu ëpp tuuru ndax ñun amuñu lu dul làmb tey jii nii am na loo xam ne tey soo ñu ko naree xañ mooy xañ nga ñu suñu teraanga xañ nga ñu suñu àdduna xañ nga ñu suñu lépp képp ku lay xañ sa teraanga mën naa ne sa noonu la bu yoree paaxa bu la bu la noonu la demee te tey ku ñu xañ làmb ji xañ nga ñu suñu teraanga xañ nga ñu suñu lépp message bi ñuy lancé mooy état bi na jàppale promoteurs yi dédommagé leen jox leen ay xaalis promoteurs yi yokkal mbëri xaalis ñu préparat combat yi parce que tey jii dafa metti essant bi nii préparé combat def say millions yurul jeex dem ba instant yi yorotoo dara ay bor nga ci amee xam nga dafa métti quoi buñ ko yokkaatee tamit da ngay day gën a métti day gën a métti loolu nag message boobu laay lancé état bi pour mu jàppale mbëri mu leen di directeur yi xam nga xool lu ñuy yokkalee mbëri préparé waat loolu kese la loolu buñ ko deful tamit du sotti merci beaucoup champion maa ngi koy jaajëfal bu baax moom Double Moteur di ko kontaanee Bilal loolu moo nekkoon mbër champion ci émission bi wax na xalaatam wax na bëgg-bëggam lancé na message appel ñëpp dégg nañ ko nañ ko jéem a defandoon rek waaye mbokk yi buñ fàtte feebar banque dëkk bi na ku ne jël say matuwaay mesure de barrière ñu respecté ko xam ne kat bu fi jógee mooy suñu arrangement di arrangement njëkk bilan la leen def ak beneen champion incha allah ba beneen yoon